ci xibaar yi bokk na si nag li soxal mbirum Samuel Sarr mi nga xamante ni rek jamono jile ñoo ngi koy placé garde à vue gannaaw nag bi nga xamante ni rek daj nañ koy teg loxo foofulee ci aéroport bu Diass li jëm nag ci cadre dossier bi nga xamante ni moo dox ci digganteeg moom ak Moustapha Ndiaye jamono jile nag bu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo chargé communication bu Samuel Sarr moom nag mu ngay xam ni rek jamono jile moom Samuel Sarr mu ngi ci loxo yi waa section de recherche moom nag. ma ngay xam le ni euh, boobu les interpellation bi nga xam ne rek dañ nañ koy def kile di Samuel Sarr loole nag dañ nañ nekk lu ko surprendre ndax nag euh, kile di Samuel Sarr moom nag génnaaw audition euh, bi nga xamante ni rek daal di woon nañ ko ko def moom nag daal di woon na fësal élément nécessaire jëm nag ci yooyu les enquêteurs ci nag na tamit ñu daal di woon ko remplacer ci postam président du conseil d'administration de West African Energy moom nag jëm nag ci mbir moomee ba tey nag buñ sukkandikoo ci responsable de la communication bu Samuel Sarr dañ ne xamle ni sax moom Samuel Sarr daal di woon déposé ak plainte jëmale ko nag ci Moustapha Ndiaye te nag boobule plainte n'a pas été instruite par les enquêteurs waaye nag ak li ci mën di am rek jamono jilee dañ nañoo xamle ni rek moomee di Samuel Sarr gannaaw nag bi nga xam ne waa police dañ nañ koy teg loxo jamono jilee nag dañ nañ koy placé en garde à jëm nag ci dossier bi nga xam ne rek rek moo dox ci digganteeg moom ak Moustapha Ndiaye